ci biir Kaolack la bokk donc su suñu egsee Bongré dañuy mel ne ñoo ngi na Baye donc du am benn différence ci ñun te suba incha allah dañuy dem na donc benn la ba léegi nii. di santaat yàlla beneen yoon di yëg yëg-yëg yoo xamee ni euh, suñu xool yi da koy yëg waaye suñu làmmin yi day lottu di koy tudd ndax ndaxte euh, Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass moo liggéey loolu ndax maxabba ndax euh, jàngale ndax dundam. lépp fi yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teg tànkam jàngale ko dund ko wone ko jëfee ko loolu la bàyyi jàngale moom lañu won moom la saa ay taalibeem moom la yar ay taalibeem ci loolu la jeexal ay taalibeem moo tax jamono bu ñu teewee ci dëkk bu tedd bii rek ñun lootu nañu suñu xol yi day fiiru suñu rongoñ yi day tuuru suñu àdduna yi yëpp dañ koy xamee ni ñun duñu dara jaay nañ suñu addu suñu adduna bi yëpp jëndee ko yonent ci yàlla moom sallallahu alayhi wasallam yu profond yu fort yooyu la ñuy am. fam daara yoo xam ne daara gàmmu nañ gàmmu rek nañuy def programme ñun nag gàmmu ak li ko wër wa maa xaw la xaa ñun dañ koy taxawal 365 jours yi dañ siy taxawal gàmmu te biir gàmmu bi dafa lu ñu tuddee wama mu nekk waajal Mawlid Ahmad si waajal boobu laytul katmiya guddi Cheikh si la nekk gàmmu Taïba si la nekk. programme aji Màkka si la nek Korite Tabaski ci la nek xam nga nasaraan dafa ne tous les chemins mènent vers Rome ñu ne ñu ne tous les chemins tous les chemins mènent vers Medina Baye la ville sainte xam nga Cheikh Ibrahim dafa wax mu ne qalbi dawa man bi Medina arqubu al habibi is arahu yaqrubu mu ne man Baye sama xol bi Medina lay aju ji ndax wéro sama soppi bi mu ngi ni di jege ji te mu ngi ko wax ci téré bo xamné mu ngi ko tuddé Rixlatu Conakry te ci téré boobu mu ngi doon jëlé waaye juru sunu serigne bi ngeen gis fi tey muy xadimu salaam te bay wax na mu ne kulluha wa ishara mu sama dund bi yëpp ay junj la ak ay tegtal ñu laaj bay lu junj mu nga dem bay ŋaang nga nopi te bay bind na 49 téere bay defal na bopam 48 millions de talibé tay ñu ngi ci 250 millions de talibé te bay kon batay waxul kon dafa junj kon ki wara filé lolu ñun dañu gëm né moy sunu sëriñ loolu mooy sunu impression en gros ci gamu bi.